jaara moom rekk man nii jërëjëf jërëjëf jëf fu lu mat a jëf jërëjëf lañuy wax jërëjëf te jëf na nag mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi nga xamante si rek yéen a ngi wéy daan ak site bu mag bi di Waarwi TV comme ni ngeen ko déggee booba ba léegi ñoo ngi fii ci Poroxaan ci bis bu am solo bii nga xamante si rek mooy bisub euh, Soxna Jaara Mariatullahi gis ngeen ko noonu ñoo ngi fii ci jumaa ji mu mel ni rang baa ngi noonu rangub góor ñaa ngi nii ci sunu loxo càmmoñ rangub jigéen ñaa nga ne ci sunu loxo eh, ndeyjoor eh, mu mel ni jamono ji nag eh, ñu ngi wéy rek di ànd ak ñi nga xamante si rek ñooy mboolem ñi nga xamante si rek ñooy ñëw fii di amal seeni ziar xam naa incha allah rabi ñu xool ñenn nat ñi nga xamante si rek ñoo ñëw ngir ziare si incha allah rabi ñu fas yéene leen a laaj rek leen nat ci ay laaj jaajëfal naa mboolem ñi nga xam ne soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. da ngaa siyaare si. fan nga bàyyi ko. ah Kër Mbaye bi. waaw yaa bi. macha allah xat na ba waa léegi. waaw. Ah. bi xat na. lool. macha jërëjëf kon mi ngi noonu ah, mu mel ni eh, li ngeen di gis rek mooy fii nga xamante si rek moo di jumaa ji ah, ñu ngi wéy di ànd ak site bu mag bi di waar wi TV Serigne Bassirou Sylla moo nekk ci technique bi di jaajaful bu baax a baax personnel bi nga xamante si ñoom lañ àndal. Euh, di nuyu bu baax baax ñi nga xamante si rek ñooy euh, chauffeurs rawatina ñi nga xamante si rek jamono ji ñi ngi wéy di ñëw. su ko defee rek euh, xam naa ñu jël fi ay quelques éléments rek laaj leen leen nat ci li nga xamante si rek moo di bés bi soxna si ñu ngi lay nuyu. maa yaa ngi ci waar wi TV. waaw foo jógee màggal si. Kaolack. Kaolack nga jógee. waaw kañ nga ñëw. ba démb. rang bi xat na. rang bi xat na trop. <laughs> kon mi ngi noonu fii ci jumaa jumaay Porokhane. ci bis bu am solo bi nga xamante ne rek mooy bisub soxna jaaratullaahi Mariama di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne rek ñooy wéy di ànd ñun fii ci site bu mag bi di waar wi TV kon incha allah wéy leen di ko kal ci waar wi TV. ربنا على محمد ثم على أبي صف الحلا waa kay euh, jërë jëf yéen ñi ànd ak seen sit bu mag bi di waar wi TV comme niñ ko waxee rek ñoo ngi fii ci Poroxaan ci jumaa ji yàlla dogal na bi ñëwee fekk nañ jumaa ji ni ñu ko di rek macha allah fees dell ku nit fu ne la waaye jóge ñëw ziyaare si soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay. fan nga bàyyi ko ñëw ci bis bi. Tiwaawan. Tiwaawan nga bàyyi ko. waaw da ngaa ñëwoon pour siyaar. damaa ñëwoon pour siyaar soxna jaara rek soxna jaara ku seetlu ku baax ki nga xam ne loo fi yàlla da koy nangu ñu ngi koy ñaanal lii nu fi ñëw yal nan ko fi ñëwee ati at yàlla may nu wër ak fan gudd yéen ñu ni jox li tamit yàlla may leen fan gudd ak wér gu yaram ngeen fekke lépp kontaan nañu sunu xol seet na rek soxna jaara. daayira bi par fële la jóge Tiwaawan ngeen jóge yéen waa Tiwaawan ngeen. macha allah da ngeen a si waa kër Baba Alima macha allah ñooñu xam naa leen macha allah euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax comme niñ ko waxee rek site bu mag bii di Waarwi TV moo ñëwoon fii Poroxaan tey doon fi am rapportage bu am solo euh, ginaaw bu la nuyoo ziar la noo tudd. man Aïda Kend laa tudd. soxna bàyyi ko. ñu ngi Touba Kër Baba Kër Baba Alima ci wetu Tiwaawan. waaw ci wetu Tiwaawan. ñu ñëwoon ziar. billaa dañoo ñëwoon ziar si waaw. maam Jaara moom. jaral nañu lu ne barke Sëriñ Fallou ku fi ñëw ren bu déwénee yàlla ñu fi ñëwaat ñu fekk ko eh, téeméeri at yu tàmbalee ren kenn bañ a manqué ci barke borom màggal gi kontaan nañu bég nañ ci màggal gi barke Sëriñ Fallou Mbacke. waaw kon mi ngi noonu Sëriñ Bassirou Sylla moo nekkee ca technique ba di jaajëfal mboole ñi nga xamante si ñooy auditeur ak auditrices yi nga xamante si rek ñu ngi baaxoo ànd a ñun ci événement yu mel nii nii rek la ñuy topp yéen ba ci kanam tuuti incha allah seen mbokkum taalibe Ndiéna Thiam jaageen jëf ba ci kanam.